السلام عليكم ورحمة الله بكي ني لن ني دي زيار لن بالو حق نان بروم سبحانه وتعالى بولن جيغل حديث تايب دا فاي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت ودهنوا به فانه من شجرة مباركة صحيح الترمذي يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا فاي وختي حديث بناء دي لن لك ويل دوليف الزيت يعني zeytu zeytun yaani zeytu zeytun maanaam huile d'olive mu ne dee ko lekk te ngeen di ko diwoo ndax moom ci garab gu barkeel la jóge xadis mu saxiix tirmidi moo tax ñu toog ba tey naan scientifique yi trouvé nañu nee nañu huile d'olive nangam ak nangam yonte sala jàng na ko bu yàgg yàgg yàgg ku koy jëfandikoo boo ko dee lekk doo seere en même temps dafay raxas colonne vertébrale bi euh, te it day faj feebaru biir yu bari da koy faj moom huile d'olive boo dee tëdd it di ko diw ci sa suufu tànk bi dafay maase sa yaram bi yëpp neer yëpp lay maase mooy diw ko ci suufu tànk bi tëdd ak moom bis bu nekk mbooleem luy coono ci sa yaram da koy dindi te day maase neer yi ba ci ñi am metti tànk tànk yëpp diwlin boobu dafa baax ci ñoom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñi waxum jalum jalum mos la dafa tënk rek bu ne jóge na ci garab gu barkeel rek doy nañu sëkk li ci des nag ñooy dem def ay étude ba xam li tax yonent bi digle ko sallallahu wa sallam foofu la affaire bi nekk bu ko defee ci wàllu sante jàngale na lépp jàngale na ko lépp luñ ci topp rek gis ci résultat te gëm ko incha allahu taala لولو موتنج حديث أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته